ne tey nag boo ñu gisee suñu rouge vert jaune nga war a xam ne ñu ngi ci finalu Sénégal nee naa la suñu réew lañ am dëgg neexul ma ànd seeg TMP Events da ngeen may daal di topp rek ma daal di xool xam naa ne dëkk bi yëpp Sénégal ñëpp vert jaune rouge lañ sopp foo tourné sànni matt mu toj dëkk Sénégal ñëpp sa def vert jaune dëgg neexul loone nuyu nañ la. ñoo ngi lay fay. waa ni nga def di sport Sénégal. waa gis nga daal bëgg ndam rek. indi coupe bi Sénégal. ñi def bër dëgg neexul. ñi sa élève lañ. ñi sama élève lañ waaw. gis nga nii ñi supporté. bëgg yow koo supporté yow. man maa sa crêpe jaata. yee crêpe. waaw da ngeen ah gis nga. waaw gis neex. crêpe. maa lay fay. yaa ngi si jàmm. sant yàlla ba. waaw nga supporté Sénégal. waaw gis nga de bëgg rek. waaw. dañuy jël coupe dañuy 1-0 allah. ñaata bi. 1-0 1-0 1-0. yaa ngi si sant yàlla bu baax baax. gisee final bi. waaw tey xama rek tey boo gisee li xam ne ndama ngi xeeñ. barki yonent bi boo li xam ne ndama ngi allah day am ndam. tey jàmm gën neex na koñ dem rek yaa fay gis ñuy supporté Sénégal projecteur foo dem gis ko wax dëgg neexul billaahi waaw kon tey xam nga dañuy ñaan dafa neex Sénégal chaque année daa war a parce que lii nii xam dafa rëy yal na may ndam lu set wicc taala waaye lii masu fee am de barki yonent bi lii masu fee am li Sénégal rek mën a am lii lii équipe nationale rek mën a am waaye kenn du douzième ngay day ñoo fi andi lii barki yonent bi kenn du ñoom wax amul dara xewul yaa ngi ci jàmm ñu kay lii ngay supporté final mais yow baaxee ma sant moo ko dëgg neexul ñoo ko noonu la fa demee nag design. dëgg naa ko. mais nag kontaan nañ de télé bi nu mu tudd. TMP Events. TMP Events. waa télé bi nuyu naa leen. fay nañ la. yéen a ngi ci jàmm. waa ni ngay supporté yow baax na de jëloon nga na muy xale bi. Sénégal rek. billaay wallaay. ñaata ñaata tey ñaata. Euh, non deux. B1 la woon tey ak 1 1 bi bu jë. wóolu nga sa bopp. barke Serigne Touba Mbacke. ah na suñu mag ñi ñaan rek yàlla baax na. Sénégal sa kaw sa kanam amuñu lu gën réew mi réew mi la ñu am. dëgg neexul ah. Sénégal tey day gagné. waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay sant. tur bi naka la. waaw Babacar. Babacar dégg naa nag koñ bi yëpp yaa ko décoré. waaw noonu la affaire dañ ko war a transformer en positif. bu ñu nee tey supporter Sénégal dañ ko war a defar bu bon sens. pourquoi pas ñu profité ñun ñëpp defaale cette semaine comme nii nii décoré. la fête et ça doit être belle. waaye tey jàmm bi nag def nañu musul def supporter ah dëkk bi foo toll ñu ngi supporter Sénégal. waaw ñun amuñu lu dul Sénégal Sénégal rek mooy suñu fierté waaw moom rek la ñu am. waaw di ñaan yàlla ñu yàlla may ndam ndam lu sedd guy. waaw maa ngi lay fay yow. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant Serigne Saliou Diop. tey nii ngay supporté dara fas jël coupe bi bii dem bay Amadou Niang. du yokk bi sunu coupe la te dañ koy jël bu soobee yàlla barke Serigne Saliou Mbacke. dañ koy jëli ba jëm ñaari. Eh, fu ne jël dugal ko fu ne. Ah. coupe bi nii la dëgg te du waaw ni nga soxla si leen fay. yaa bu baax a baax. a baax a tey wax rek de Sénégal boo xam ne ñoom mooy jël tuuti moom. waaw dañuy dóor 2-1. waaw nag bu yaroo nag ñu dóor ko 2-0. bu yaruwut 2. trois lañ koy dóor ba quatre. waaw bi moom incha allah mm. yaakaar naa moom. coupe bi moom bu baax. waaye kenn du douzième ngay bu soobee yàlla ba yàlla mu loo ko ñaan yàlla dana leen jox ndam bu neex a yàlla ci dara da ngeen koy am moom bu soobee yàlla da ngeen koy am. ñu ngi lay fay. yaa ngi si jàmm waaw maa ngi si jàmm ñu ngi lay def. Sénégal jël ndam li ñun bëgg ñu dul jël ndam li rek dëgg la ñun suñu football waaye nag suñu doom ak suñuy sët ak suñu sëtaat ma ngi tax a jóg yàlla na ngeen jël ndam ci barke sëñ Touba yàlla na ndam bi ñëw ñun ñëpp ñu feetee ko kontaan waa gis nga ni ñuy def final dañuy supporter ba mu bëri doole. wax du am dara du xew. waaw dara du xew. Sénégal moo xew la kan moo sa joueur préféré. man ñëppay sama joueur ñëpp laa faral. baax na tous derrière les lions. waaw tey match bi muy demee. waaw match bi tey du yomb xam nga dañ koy jël tamit final bi ñoo ko moom. ñaata bi xoolal lii. ñaata bi waaye 2-0 nga. wax du am dara du xew. eh Ram sa sa ngi nii ah nag may daal di jël ma daal di wax ak Rama. Rama nuyu naa la. nuyu naa la yaa ngi si jàmm yaa ngi si Eh, ni ngeen di supporté xale yi daal ñooy stade gën naa nii lañ def. daal